le 5 février 2023 ca arène national Kajoor production moo ñu fa woo Ibrahima Diop nekk ca bopp ba Gris Bordeaux le troisième tigre de Fass le bordelais de Villeneuve Saint-Georges moo war a jàkkaarloo nag ak Ama Baldé caatu Fallaye sëll bu ndaw bi borom Ama yaa yëngal pikin mbokk yi derbi bu ne mës na am ci làmb waaye derbi Fass ak pikin mooy derbi bi gën a mag looloo waral Ibrahima Diop ak Kajoor production ne làmb ji seen affiche point com dong lañ ci wóolu ñoom lañ ciy àndal ñu dugg ci ruq yeeg ruqaati war leen Gris Bordeaux war leen amaa balde naka la ñuy waajee ba ci biir bés bi ndaxte nag bës bi du bës bu ndaw te bës bu mag la kenn du ko cof Mbaye Dia Diop maa ko fiir ku leen ñamal Mboor Mbaye su ma ngeen baaw fii jaar